برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدي ومولاي قادم الأمة ñu ngi lay nuyu di lay ziara say doom say taalibe say étudiant say soppe ñoo xam ne mbëggeel giñ am si yow làmmañ wala benn baat mënu kaa nataal ba jot mbëggeel googu ñëpp ñu ngi ñëw ut si bàyyi si yow gannaaw buñ xamee te mu wóor leen ne yaay bàyyi di lay ndokkeel njëkk di bëgg lool si toog bi nga toog waaye si ferale gi ñuy yàlla farale si yoon yi nga demoon yi njëkk yëpp ak yoon wu mujj wii bi ma lay seetaan Cameroun sama xel mi dafa daj si béyti boo xam ne yow mi si laa ko jàngee yow xool nga ma fii si mbaar mi ne Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu bés dafa tagg yonent yi fii si mbaar mi ba benn naar jib na ko nuuru yabruzu wal hudaa yatahaqqaqu al ardu tarqusu wa samaa'i tunsafiqu mu ne leer bi jolli na njub bi yaatu na asamaan mi ngi fecc suuf mu ngi koy tàcc ba ma lay seen Cameroun ba ñëpp tàllal seen loxo yi ku nekk di jël si yow baatu laa ilaha illallah di seetlu ne yàlla rek moo fi ne bëggoon naa laa jege ba wax la tamit baat nga waxoon ma ne moom la nar a bëggee woon si bàyyi waaye ñu ñëpp àbb nañ béytu boobu wax la ne bëgg nañ si taxawaay bi bëgg nañ si jëf ji duñ guddal mukk kàddu bi ndax ñun ak yow daanaka ñun ak yow la kon sant na yàlla bu baax si yàlla bu ñu mayaatee ñu ñëwaat yoon wuñ mos a ñëw nag yoon wi moo ñu si gën a neex ndax dafa fekk ay exploit yoo xam ne masta dañ mais yàlla feeñu la ko yow si karaama bàyyi si tëbbu bàyyi si barke bàyyi ba lislaam yokk yokkuwaat yokkuwaat sa loxo ñi ngi ñëw tamit si barke yokk googu noonu di leen ñaan nga ñaan yàlla loo ñu mos a ñaanal ak loo ñu mos a xelal

ut si ndollol si seen sëriñ ut si tëbb waaye ut si ñaan waaye ut si jàngaat ndax ñun si université yi liggéey woon tey ñëw nañ si université boo xamante ni moo gën a complète université yi jógee ñun ñëpp ndax lépp luñ fa bàyyi danañ ko fekk fii waaye danañ fekk luñ bàyyi lu fële kon ñu ngi ñëw ñu ngi si amphi mbedd ñuy tey amphi la boo xamante ni moo gën a mag si amphi yi nekk si Sénégal te li may wax tey su kàddu bi ñëwee si yow ñi ñëpp danañ xam ne ñu ngi si am fi yoo xamante ni danañ jàng lu nekk nag danañ xam lu nekk kon kàddu yi foofu la yem ndax bu ñu nootee asamaan si neexu te yow la ñuy déglu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. di seen dëkk dëkku seen seen lu nekk di kontaan ci toog ak yéen ku toog ak yéen mi ni toog ak ëllëgam ni muy sa ëllëg boo gisee ñi ko nar a doxal nga am ci ñoom yaakaar nga toog ak ñoom lu muy sant yàlla ñaan yàlla seen yéene yooyu nga am yëpp ah yal na yàlla dëggal ko seen fekku ci yi ngeen ñëw ci yëpp yal na yàlla amal yal na yàlla amal ko ci seen loxo mbaax ñi ngeen ñëw yëpp pour seen bopp pour seen réew pour réew jullit yëpp itam yal na ko yàlla dëggal ci yéen yal na yàlla barkeel leen seen ndaw ndaw barke la yal na yàlla génne barke boobu ci yéen ndax lu yàlla di baaxal di ko génne ci ndaw yi da koy jaarale ko jaarale ci mag yi ci ndaw yi da koy jaarale ndax benn waaye def na wax na moom mooy saaxibul fayda dëkk Mauritanie Mauritanie la dëkkoon mu ne moom mooy saaxibul fayda tijaan yi bi Cheikh Ahmad Tijaan doon wax bàyyi bind ko leetar na ko du yow parce que yow yaa ngi dem man la man maa ngi ñëw romb nga juróom-ñaar fukki at kon yow dem man man maay saaxibul fayda parce que man maa ngi ñëw suma 30 ans ma tagul bon man ma bon nga xam ne lu nekk rek ci xale la nekk barke bu nekk daal jigéen ci xale yi la ko jaaral waaye xale yu am xale yu am dow xale yu am bëgg-bëgg xale yu am ay gént te loolu yëpp nit am na droit def ko nit am na droit bëgg nit am na droit gént nit am na droit am yaakaar ci boppam ak ci réewam nit am na droit am yaakaar ci yàlla kum neex fu la nga taxaw fa ñaan fa yàlla ñaan yàlla te loolu amutoon ci xel yu njëkk yi ñoom daaw ñemee ñaan yàlla dañoo ñëw ci yonent ne ko wax ak ñaanal ñu yàlla waaye ñemewuñ ko waaye ñoom ñemewuñ ko yàlla mayu leen woon loolu xeetu yonent yàlla Muhammad la may foo bëggee jokkee yàlla foo mën ci toll rek jokkool yàlla yàlla ngi nekk ak yow yàlla ci droit ndax lu ci droit yàlla may na ci barke yonent yàlla Muhammad parce que yonent yëpp kenn ku ci nekk yàlla may la karaama may la mujisa boo xam ne euh, ci la seen nit ñi gëmee ne yaa leen mën eh, yow leneen nga yonent yàlla Muhammad karaamaam yàlla nga ko may ci xeetam ak di xeetam ànd ak te mooy alquran moo tax mu ne dakkat leen ndax ngeen bëri ndax yowmal qiyaamati dama leen di tiitaroo ma ëpp lu ma dugal ci yoonu yàlla ci mboolem yonent yi ma jiitu loolu yëpp lu muy tegtale mooy dafay tegtale ne ni nit dafa war a am itti waxtu boobu muy war mooy waxtu ndaw yi ngeen tool waxtu doole waxtu kattan waxtu barke waxtu woo xam ne lu lu ngeen daal bu ngeen bëggee mu nekk wurus loolu yëpp yàlla ko denc ci biir. xale yàlla na ko yàlla ci biir xale di tax mu denc ko ci biir xale parce que xale mooy yokk moom lañ gën a yaakaar yokkum dundam moom lañ gën a yaakaar kattanam moom lañ gën a yaakaar dooleem moom lañ gën a yaakaar euh, euh, xelam. rawatina nag su xale yoo xam ne jàng nañ ba doon ay universitaire ndax ku àgg université rek xam ne daw naa ba solo doo la ah, nga fi nga jaar yëpp ba agsi fa donc bon place la boo xam ne. dañu dañuy préparer nit pour bu fa xam nu muy jëlee xam-xam xam nu muy ak itam xam nu delloo xam-xam ci biir population loolu mooy mooy xale loolu mooy université yi ngeen di jëm loolu mooy am yaakaar ne ëllëg mën naa dolli ci li nga xam ni ñi passé defoon nañ ko ndax nee nañ boo doon rek da ngay da te booy wàññi rek moo yaa ngi yàq yàlla bu leen yàlla boole ci ñooñu yàlla ngeen bokk ci ñi dool bi ci mboolem doole kuwaay yi nga xam na doomu adama soxla na ko doomu adama lim soxla bëri na lool lim bëgg a comblé bëri lool lool lool te kenn rek moom kenn moom kenn moom kenn def def liggéey liggéey liggéey ba àgg firdawsi àlala ba àgg aljanna te moom kenn rek ndax loolu kenn mën na ko kenn mën waaye li tax yàlla indi société yi ñu ñi bari fu ñu mën a dimbalante ci mbiri àddina waaye dimbalante itam ci mbiri roo ndax am na nit ñoo xam ne ku toog ak ñoom da ngay doole dangay da ngay doole ko ci sa yëpp da doole ko ci sa xam-xam da doole ko ci confiance da ngay dooleeku ci ne man mën naa dolli mën na yokk mën na dolli mën naa yokk te maa ci yoonu dolli maa ngi ci yoonu yokk parce que maa ngi ci sakkuwaayu xam-xam muy université parce que ci place yi gën a sell ci àddina bi université ci la bokk jumaa bokk na ci université bokk na ci daara alxuraan bokk na ci dafa am ay yoo xam ne boo fa duggee rek da ngay nekk beneen nit ba fay dugg doon a ko waaye boo fa duggee da ngay nekk beneen nit da ngay nekk beneen nit boo boo boo duggee université léegi rek yëg da ngay yëg màggaayu bala ngaa jéem a xam dara mais da ngay dugg nga fu màgg dugg nga fu kawe dugg nga ci temple boo xam ne dëgg-dëgg doomu aadama lam fa daan uti di ko fa uti ba léegi mooy naka lay ne ci nii ma nekk dem ci ñu gën a kawe jëm ci ñu gën a kawe. jëm ci lu gën a baax jëm ci mën a mën a mën a mën a fent doomu dafa war a fent lu yàlla rek mooy fent yàlla fent na ba pare li ci des ne def na def leen ko mën naa fent amee kat mën naa dafa dafa war a fent dafa war a góorgóorlu pour amal ndax mën na ko ndax yàlla may na ko may na ko mboo leen yi nga xam ne daf ko soxla pour dund ci àddina bi tabax tabax fii parce que dama leen di yóbbu ci àddina pour ngeen dundal ko dundal ko nag moo dundale ko li ngeen li ngeen xam li ngeen yëpp li ngay gis ni yëpp dundal àddina rek la ndax lii yëpp ci xelu doomu adama rek a bàyyi ko développement bi ñuy gis rek nangam ak nangam ak nangam yëpp ay xel rek benn ay ñoom Pape Mahi xel xel fu mu nekk mën na ko ci mbedd mi xoolal nag bi xoolal tabax yi xoolal oto yi xoolal voilà xel maa ci xel maa ci mbedd mi waaw kon bu ko defee xel yooyu su fekkee yàlla may na la ko te nga gis ne li xel defagum ba léegi lu kawe la ndax lu kawe loolu man mun naa cee yokk dara wala mënuma ko évidemment mun naa cee yokk dara parce que jamono démb boobu lu jamono tey bi du jamono ëllëg bi ah te yàlla dafa wax ne kulle yow mi woo fi chanin waxtu bu nekk bés bu nekk yu bees yooyu muy génne ci nit rek da koy jaarale développement technologie bi am ni bët bu solo ñuy gën a kawe xam-xam bi teel a lay bàyyi ko ci ñoom ah waaye nag comme que loo ko jox directement mais dafay wax jaaruwaay donc bon jaaruwaay yooyu université yi ci lañ bokk jumaa yi ci lañ bokk daara yi ci lañ bokk mboolem jotuwaay yoo xam ne doomu aadama dafay jëlee yëgee loo xam ne dina ci jël du ko jëriñ dara ci boppam jëriñ ëllëg ñeneen nit ñi moom loolu yëpp ci di yàlla may doomu aadama pour mu taxawal boppam taxawal taxawal xeetam taxawal réewam taxawal tam addina bi yëpp Cameroun barki leen falaa demee falaa dem bu fa gis ay Sénégalais dañuy ñëw ministre ñu ne ma ñun fii lañ doon état de waay ah te ñu ngi dëkk Fuuta waaye fii lañ doon état de waay ma ne leen yéen kon bu baax ndax seen concitoyen moo ñëw fii liggéey fi dem mu ñëw bu ngeen fekkoon lu bon moom la fi def da ngeen di ñibbi. Mhm. wala du ngeen toog wala du ngeen ko bëgg a xam sax waaye ngeen ñëw gis fi loo xam ne mat na takk def doomu adama ngeen nangu ko jël ko ci yéen bon gis nga bon doomu adama ak kàttanam ak bëgg-bëggam fu mu rek yàlla àggale mhm. yàlla. àggale ko Cheikh Ibrahima ñun ñëpp dañu ñuy misaal ah ci côté nit ak yëngatu ci biir nit ak yëngatu ci biir àddina xam-xam boo ko amee xam-xam lu muy jëriñ doo ko lekk doo ko naan doo ko sàngoo booy tëdd eh, eh, jëriñ jëriñ ci keneen moo tax aju jóg xam-xam te doomu aadama ci kaw suuf yéen di ngeen di jàng ci ay yu njëkk yi ci alxuraan mm-hmm. wa allama aadama wa allama aadama yàlla moo jàngal aadama waaye yemul rek jàngal ko daf ko jàngal ba pare daal di koy examen léegi tout de suite ndax leen ko jàngal dégg na ko la bien mm-hmm. hmm? yaa aadama am adama mm-hmm. dama la jàngal jàngal ko malaayika yi gis nga adama looloo ko tax a jóg ah? xam xamle jëriñoo xam-xam mooy mooy si premier première Adama ak yàlla mooy waa Adama Adama Adama xam na mu ne ko xamalal ñeneen ñun xamalal ñeneen xamalal laa tey donc doomu Adama liggéeyam fii ci àddina mooy jàng ak jàngale rek ak noo mën nag dafa bëri ay ah am nañu ko tëj ci biir daara ji am nañu ko tëj ci université yi mais xam-xam romb na foofu yëpp xam-xam romb na foofu yëpp parce que xam-xam mooy xam-xam ki koy xamle mooy yàlla ki ko xamle mooy yàlla euh, wa allama adama al-asmaa kullahaa benn bopp beneen bi itam wa allamaka maa lam takun taalam xamal naa la yow doomu adama loo xam ne xamoo ko woon xam-xam yi ñuy xam yëpp di ko jëfandikoo xam-xam dëkkul ci suuf xam-xam asamaan la bàyyi ko pour ñëw jubbanti waa suuf suuf moo tax xam-xam ci la bàyyi ko jaar ci yonent yi bo bo boo leen feeñuwaayu xam-xam rek boo demee ña ko sos ca njëkk njëkk njëkk ga boo demee dañ naan jokkalante ak asamaan ah jàng ngeen yonent yàlla Idris ah, xam ngeen ne technologie yëpp ci moom la déparé ci yonent yàlla Idris oh, oh, oh, saret yeeg fas yeeg nangam ak nangam pusaak ñaw ak yooyu yëpp yeneen ak yeneen ak yoo xam ne ci yonent yàlla Idris la bàyyi ko te loolu mooy base technologie bi ñu àgg ñu àgg mm. ah mooy base technologie bi ñu àgg ci seen jamono Firawna xamoon na kattan Firawna xamoon na kattanu yàlla ab doole xamoon na kattanu yàlla ak doole moo tax ku bëri lu yàlla di tudd ci alxuraan la lu bëri yàlla la bàyyi ñu laaj ko ko war a tax Firawna rek lay tudd tudd tudd parce que bàyyi mu ne ñaw gi nekk ci moom. Mm. moom la yàlla jox cër. bëgg nit ñi cëroo koy ñaw gi nekk ci moom. Firawna moo njëkk a wax ne mën naa dem asamaan. ah. ibni lii sarxan laalli ablughul asbaaba asbaaba samawaat yow defaral ma loo xam ne dama ciy dugg dem asamaan donc loolu xam-xam mos di ànd ak doomu aadama ah. dafa mus di ànd ak doomu aadama waaye nag xam-xam bu nekk nag dafay xaar épogam ak seeni borom hmm? bu épogam ak seeni borom ñëw rek dafay yomb dafay yomb ba mel ni doon xam ah waaye mooy mooy jafe boobu ngay dugg ca daara ya la waxal wala waxal baa nga seetal seetal ngay jaar foofu yëpp ah nga jaar yëpp donc waaye lu doon dëgg nag dafay jafe moo tax doole lañ koy utiyee moo tax suñ kàttan yëpp lañ koy utiyee moo tax suñ bi gën a neex ci suñ dund foofu lañ koy utiyee mooy waxtu nga nekkee jeune rafet nangam ak nangam tout ça yëpp boole boolewu ci yow nga yëg kàttan tout ça waxtu woowu ñu loolu nga am noonu sakk ko ci biir xam-xam ndax nga xam-xam ndax bu ëllëgee nga bokk ci nit yi nga xam ne dañoo nekk xalifatullah hmm? xalifatullah Eh, mooy ku nekk ci ñun rek ku ko bëgg a nekk rek nekk ndax xalifatullah mën nga ko nekk yàlla xiir mooy liggéeyal diine comme yonent yi xalifatullah mën nga ko nekk fu yàlla xiir mooy liggéeyal technologie parce que xam nga ne ñuy créer technologie yëpp koo ci toogal rek gis nga nga gis ne mbaam mbaam mu nga toogal ah koo ci jàng dundam rek da gis ne mbaam ba jaar te da nga gis ne itam doon mbàmb gi sax mayu ko ko ah waaye dogu bi mu dogu bëgg am yàlla dëgg mm-hmm. hmm? li nga li nga yéene bëgg koo am dogu ci yàlla daf la koy dëggalal léegi ah, ñoom gars yi tabax àddina bi yëpp da nga gis ne quelque fois da nga gis ñoo xam ne ñu ne biñ nekkee école primaire wala seen xamuñu woon bañ demee ba jeexal ba nga xam ne ñu ngi bëgg a naagu lañ door a seet ne lii moom bu ci jaaree day mën a def dara ci at mm-hmm. te gis ngeen ko ba tey ñoo xam ne foofu lañ jaar donc woon xam-xam góorgóorlu am na pour am ko waaye yàlla moo koy may mm-hmm. yàlla moo koy àggal waa ànd ma kat maanaam te kontaan la loo xamutoon loolu laa la xamal loolu nga xamutoon te bëgg koo xam bëgg koo xam def ci sa ittee alphabet dala ko xamal ndax gis ngeen ne ñu bëri ñu bëri seen liggéey seen xam-xam yi ci nelaw la ñëwee ah. Mm-hmm. jéem jéem kati kati kati kati kati kati ba sonn muy jafe rek ñu nelaw rek gént ñu leen ñu leen ñu xam ngeen ma leen di wax. Mm-hmm. ah yàlla moomu di mayee xam-xam. yàlla moom mii mii fi ba léegi ñi ko doon maye moo ñu koy ut ba léegi. boo ko utee rek am ko te xam-xam mooy tabax xam-xam mooy yokk xam-xam mooy tax a nit yëg fooraayam boo amul xam-xam doo doo yëg yaay lan waaye boo amee xam-xam xam ne man yàlla muy taxaw ne la wax ne man maa la bind ak sama loxo man maa la bind ak sama loxo lu yàlla bind ak loxoom ku nekk xam na ne loolu mooy dayo barke mooy dayo yëkkati ba pare tewul ci emut foofu ba pare mu ne maa la teral la maa la teral yëkkati la hmm. Hmm? Euh, gis nañ doomu adama ni ko yàlla fonke ak ni mu ko bëggee ak ni mu ko jàppandaleen mbooleem yi nga xam ne mu ngi ko yóotu pour am ko bu boobaa yàlla juy mayee moo fa nekk waaye yàlla juy xool ndax ki yéefal la ki judd la nekku fa parce que yow ay jaamam rek lañ yoo xam ne ñu ngi góorgóorlu di ut yoo xam ne ñu ngi góorgóorlu di ut te dogu li ñuy ut dañ ko bëgg am te pare nañ ko def seen bopp bu ko defee yàlla dina leen may changement waxtu wu nekk mën naa am soppeeku waxtu wu nekk mën naa am jógee ci suufee dem ci kaw waxtu wu nekk mën naa am euh, euh, dolli xam-xam man na am ba ki dem damay jangoy ñu ne nit ku ñuul wu dara ci àdduna dama sam ci sam fe na ma wu dara ci àdduna te afay voilà man na ko gëm man na ko bañ parce que dama xam gañu seen pexé nit ku ñul ku man attan nañ ko ci yobbu mm-hmm. nangu turam jox ko benen tur pour pour bu jeexee dañ ko effacé fàtte ko jël beneen tubaab teg ko place am ne moo ko nekk. am na la am na de. Mm-hmm. am na baax a baax. Mm-hmm. na xam naa ci ay Ghanéen yoo xam ne Allemand yi ñoo ko ñoo ko yëpp yàlla. Pape ko waaye boo boo moomee dara. Mm. kenn mënu koo nangu. époque bi nga koy moomee.

benn nit bu jógee Sénégal moo ko moo waral bi buur bi moo mujjee invité def naa dama li nga ñëwee sama kër dama kontaan parce que suma maam moo një bokk na ci njëkk a gis baay waaw moom buur parce que nag bàyyi màkka at at boobu mu tasee buur kon mu ne mu gis nit ñi rëñ rëñ rëñ ci ci kaw moom buur mu laaj burkal ne ko xanaa ki buur la comme ñun mais burkal ne ko déedéet kii mooy buuri buuri kii mooy buuri buuri mu daal di ñëw jàpp ci bàyyi tariqa ci yaan doon tariqa doon ñaan bàyyi pour mu ñëw dëkkam mu ne waaye sama bàyyi bàyyi doon doon doon doon di ko yàlla di ko mayut amu ko man la ko yàlla may te sonn ma ci te yaa nii. te ñëwoo fi lu dul ne yaay xalifa Cheikh Ibrahim donc man loolu suma moom bëggul man la ko yàlla may te bàyyi ngi nii ndax xalifa Cheikh Ibrahim mooy Cheikh Ibrahim. Mm-hmm. wallaay. Mm-hmm. nit ak bëgg-bëggam mm-hmm. ah. dana dem ci bàyyam ne ko walaay. sa bëgg-bëgg ba ñëwoon am na. Euh, kon. Euh, ñu ngi kontaan ci toog ak yéen kontaan itam ci li ma leen wax ne maa ngi xool ëllëgu Sénégal ci seen loxo. yàlla yal na ko yàlla jaarale ci seen loxo. ak ci Sénégal yal na ko yàlla génne seen loxo. nguur a Sénégal yal na ko yàlla feeñal ci seen loxo. parce que ñu ñu doon góor la yaa ñu doon góor la parce que. boo demee Cameroun rek da ngay xam ne Sénégal boobu góor ay góor la eh, foofu réew déggoowu wu leen gàdde aw yal nañu may itam yal nañu may ñu mën ko téye teewuwaay yi nit fi gën a góor fi mu gën a dëggu pas-pasam ci yàlla mm. pas-pasam ci yàlla foofu mooy dëgër waaye di nga xam ne dara mënu ko raw boo ci xasee sukkandiku rek amoo sukkandiku moo tax ñuy wax naan yàlla amul xam nga bu yàlla amul yow boo jaaxlee koy ñaan. Ah. boo jaaxlee koy ñaan ak ci ko yëm. ah dégg dégg war point boobu waxal ñu ko fii lañ leen di yóbbu bu ñu leen jëlee yàlla fii lañ mais kenn ku nekk ci am na guddi goo xam ne dafa fanaan ñaan julli bu amutoon yaakaar ne am na koy déglu di ko def sa yaakaar boobu ku la bëgg a wax ne du dëgg dama mu ngay sànq mu nga mu ngi wàññi doomu aadama donc yàlla yàlla may leen yéen bu rafet bi ngeen am ba ñëw xëcc xëcc ngeen di xëccu mbaax ba ñëw mbéwi bu wéy di ngeen am ba ñëw parce que da ngeen a wóolu seen bopp te dañoo bëgg a bokk ci ñuy tabax donc bon fokk am sukkandikuwaay fokk am sukkandikuwaay bu dëgëre dëgëre dëgëre ñun hmm. hmm. ngeen di wone nii am nañ sukkandikuwaay mooy ci Ibrahima hmm. Cheikh Ibrahima ci boppam boole wu kenn kenn kenn boole wu ñoo yàlla rek la ñu boole parce que bala nga ne du du am si yàlla am mooy yàlla donc man boolewul ak yàlla mi nga xam ne moo la ah, dafay dafay doon loo xam ne bés booy booy booy nekk jàngkat ak gëstukat ak ba dugg ci rëpp da ngay da ngay da nekk nit mun naa def dara ndeke nit mun naa def dara ndeke nit mun naa amal ndeke nit mun naa fent ah. yal nañu yàlla may loolu yëpp yal na yàlla dëggal yaakaar yi ñun ñëpp ci suñu bopp ak suñu réew ah, suñu diine yal nañu yàlla def dëgg dëgg ñun ñëpp ñu nekk njabooti baax waaye naat nañu yal mm-hmm. na ñu def ñu yal na ñu def ñu bokk ci ay njabootam. kontaan na trop. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi तो आप Sometimes we are the same way, we really affect the national. ziare bi dañuy bu ko a bu baax li ñu am mbégte yëpp ne yokku nañu ndax xaalis moom mu ne am saa su ne bëggal sëriñam sëriñam ubbil buntam ñaanal ko waaye jàngale ko fàttali si li war a nekk. fàttaliku responsabilité ci diine ak ci àdduna ndax en tant que kuréel goo xam ne dafa am ay élèves ay étudiants ak ay diplômés euh, dellu si lettre bi maanaam sedda ministre radiyallahu anhu bindoon ay doom ay talibé ñu jàngi nekk si ay position étudiant mu leen waxoon mooy ne na ngeen jàngi liggéeyal seen diine ak seen àdduna سجل من اللي جيل سن دينا يوزا أتصل قد الله بحر سكون من اللي جيل سن دينا ما يفهم من دون واحد جس سن دون دون غير خمنا نون اللي جيل سن دينا اللي جيل سن أبنا خليفة بي جمال يا سلام دل ما يقعد مسلول لبكون أجي نك خم يوم كون أي سنتي ما بي أم نوين اللي جيل سن دينا يوكلس فات لنيو كان موسى جل واي كان موسى وير ndax sëriñ bi nee na nit mënta ñàkk am wéruwaay ña mënta ñàkk am fu mu te am ñu joxoñ mooy Baye Niass doy na sëkk fàttali tamit xam-xam bi nga xam ne moo man a transformé àdduna moo mën a tax nit nekk leader ndax Baye Niass nee na al ilmu wal imaam imaam mën nañ ko suñu fee leader foofu noonu ndax leader bi moo mën a groupe ak ay nit ommat leen jëme leen ci am njëriñ kon sentiment de satisfaction sentiment boo xamante ni daal yokk na bu baax a baax lii nag dafa yàgg ndax depuis deux mille muy vingt quatre ans si ren lañ ko daan def au début boobu daayira université dafa kese la woon muy évoluer di évoluer bañ àgg tey si daayira mboolem université yi am si Sénégal à travers kuréel bu tudd FEDFED nga xam ne suñu jàngee bi école waaj a tëj ñu ñëw daje bàyyi si ay doomam ak si ay doomam dem ak ñu nekkal moom si pays bi ñu ñaanal ñu yàlla si examen yi ñu examen bi jàll ay diplôme ñaanal la liggéey waaye ñu fàttali ñu responsabilité yi si fayda bi ak si xadara bi ak si réew mi

xool naka la ñuy mën a jouer suñu rôle wax dëgg yàlla am sax benn jouer ma rôle am ndax mboolem lu xale fa oote si pays bi rek soo demee ay pionniers lañ fa waaye actuellement nag war nañu am beneen allure bu ñu jël war a am beneen doxin te am nañ benn projet boo xam ne mi ngi suñ kanam muy maxat bi bàyyi bàyyi fi am nañ partenariat ak le directeur général de Cheikh Mahamadou Ibn Hamina am na lu ñu fa sant incha allah benn dana ci taxaw balaa école yu tijji mu réalisé ko te su ko réalisé mooy xidmaal bàyyi la ndax bàyyi xam-xam la joxoñ nit ñi kon fi bàyyi wax ne moom fa la génne ay magam génne fa mu oo taalibe yëpp pour ñu jàng fa te ña fa jàngee woon liñ taxawal si àdduna bi kenn mën ko xam ni kon ñun buñ buggee def loo xam dañ koy réaliser benn projet foofu muy seen participation si li nga xam ne mooy jëmmal projet xam-xam si loolu kon ñëpp war nañ si taxaw kat doog mën li ma gëm mooy li ñu sant war nañu def ko foofu te loolu laay ñaan yàlla yàlla dimbali ñu si si gàttal daal loolu mooy woon solo tey bi daal dajeeg bàyyi la si jaar si téléphone ngir yëkkal si kóllëre waaye tamit yëkkal suñu yaakaar waaye sax si ñaan bi mooy def asalaamaaleykum allo voilà. ñu ngi sant yàlla bu baax. alors président. ñu ngi ci jàmm yóbbante bi egseegul Thank you.

très riche en enseignement et qui nous a beaucoup appris également, Après cette étape, nous sommes allés à euh, qui est un site historique. Euh, tout a débuté. Tout c'est par rapport à C'est là où il a il a commencé les premiers jours de la Faïda, qui, aujourd'hui c'est euh, propagé partout dans le monde, dans les années 1929 avec vraiment beaucoup de sites, dont sa maison, la maison de Khalid Blagnès, la chambre de Khalid Cheikha Djanka, ainsi que le euh, Boustan Vraiment, c'est une étape très riche en enseignement. Après toutes ces étapes, nous, nous avons tel local de la chambre de Khalid euh, qui nous a donné une, une, une, une plein d'enseignements d'enseignement, très motivant, C'est ce que je dis souvent. Le calife, même quand tu es désespéré dans la vie, si tu l'écoutes, il te donne une énergie, il te dit que tu es capable de tout, euh, tu es capable d'aller là où tu, tu veux, au bout de tes ambitions pense que c'est tout le centre de Et nous avons également saisi l'occasion. Et c'est également que nous avons accueilli avec beaucoup d'amour et beaucoup de fierté. Et nous tout soit que soit Merci je voudrais lancer un message, peut-être euh, à l'endroit des autorités étatiques, si je peux le ainsi, mais également à l'endroit du autorités des surtout euh, le président du conseil départemental, parce qu'aujourd'hui malgré euh, ce que, ce que, ce que, ce que la, la Faïda est enclavée, euh, aujourd'hui nous avons eu d'expérience, je parce que nous avons eu beaucoup de problèmes pour se rendre dans ce pays. Nous avons fait trois kilomètres de marche contre les de administrés le un village. Et vraiment, ça nous a posé beaucoup, de problèmes. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel aux autorités locales, mais également aux autorités étatiques, pour qu'ils essayent de trouver des voies des moyens qui permettent de désenclaver ce site qui est vraiment un site euh, historique pour la Faida, mais également qui représente beaucoup de choses pour euh, la communauté de Cheikh ce que nous connaissons. Donc, vraiment, c'est le message que je voulais lancer. Et je souhaite que vous puissiez également, que le message soit entendu et que les solutions soit apportées. برهام باء وراء ثم